société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo di may seen revue de presse tali na jàmm ñu ànd xëy yér yéen i kaay ñu xëyanto yéen i kaay gi de Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko njiitul Pastef démb janoon ak taskatu xabaar yi waaye nag daat nay wax ñi nga xam ne ñoo bokk ci complot bi nee na Serigne Bassirou ci complot bi la bokk commandant Abdou Mbengue mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon section de recherche ci complot kookee tamit ci complot bi la bokk maître Dior Diagne jabaru Antoine Diome ministre de l'intérieur kookee tamit ci complot bi la bokk waaye tamit Mamour Diallo borom 94 milliards yi kookee tamit ci complot bi la bokk yéen a kaay gi dalaise ko ni ki démb Ousmane Sonko yëkkati na ay kàddu bëri na loo xam ne daan na koy leeral ndax nee na mbir mi ba mu pëcceexoo nag ci fi nga xam ne mooy gendarmerie maanaam mbiri capitaine Touré ba ñu koy nga xam ne moo jiite woon gendarmerie nationale bu Sénégal dafa daal di nga xam ne mooy ab enquête interne biir gendarmerie maanaam ci biir section de recherche Jean Baptiste Tine dafa santoon nag ay colonel na defal leen ma enquête defal leen ma enquête ci biir section de recherche ngir nag man ma xam lan moo xew ak lii capitaine Touré di wax lan la loolee nga xam ne mooy enquête bi nag ku ñuy wax colonel Omar Diouf la ko santoon ak keneen ku ñuy wax colonel Crépin Assane Sambu ñaar ñii la santoon nag ngir nag ñu daal di koy defal li nga xam ne mooy ab enquête ci biir gendarmerie ndax mbir mi nag jaaxaloon na loola a waaye ñaari colonel yi biñ ko defee ba pare li nga xam ne moom la rapport bi wane loolee moo doy waar bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko ndax nag rapport bi li mu wane Ousmane Sonko nee na Serigne Bassirou Gueye ci boppam rapport bi wane na ne moo manipuler enquête bu njëkk bi nga xam ne moom la ñu njëkk a def ndax nag bi ñu njëkkee def ab enquête ku ñuy wax Ndiouk ak capitaine Touré mii def enquête bi Serigne Bassirou bi biñ ko yónnee li nga xam ne nag mooy PV bi dafa wax ne lii dindi leen ma fi nga xam ne nag day setal Ousmane Sonko te nag yokk ci loo xam ne dafay taqal Ousmane Sonko Ousmane Sonko nee na lii may wax c'est écrit noir sur blanc te nag versé naa ko ci dossier bi jox naa ko doyen des juges ndax nag ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gueye dafa jëli ay photo photo yoo xamante ni maara day taal yi wax na ci salon Ndeye Khady Ndiaye la ngir nag sarsa Ndeye Khady Ndiaye ngir mën a jot ci Ousmane Sonko waaye nag photo yooyee ginnaaw bi ñu ko jëlee nag yóbbu ko cybercriminalité doon ko càmbar ndaan xool photo yi ba xame laale na nag ak salon Sweet Beauty bu Ndeye Khady Ndiaye waa wala déta waaye cybercriminalité bi résultat yi génnee wane na na photo yooyee maanaam laalewul dara ak boo beauté bu Ndeye Khady loole loolee nag moo doy waar ci mbir mi yéen a kaay gi nag nee na Serigne Bassirou Gueye mii maanaam liggéey boo boobee commandant Mbengue mi jiite woon section de recherche la pare nag maanaam mbirum enquête ba ñu dindi si ki nga xam ne mooy njuuk ak capitaine Touré ba tey ci biir journal bi du l'Observateur Ousmane Sonko njiitul Pastef moom nag nee na altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal dina daal di porte plainte ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gueye ci kanamu la Cour suprême Ousmane Sonko ci yéen a kaay gi de Les na l'heure ba tey ci biir journal bi Ousmane Sonko nee na rapport interne bi nga xam ne maanaam def nañu ko biir gendarmerie daat nay wane ne am na ay menaces de mort yoo xam ne maanaam jëmale woon nañ ko ci capitaine Touré maanaam rapport bi li mu wane daal mooy capitaine Touré ñoo ko doon menacé ngir daal di koy rayé yéen kaay gi di 24 heures nee na rapport interne boobu nga xam ne Jean Baptiste na nag daan na koy jébbaloon Macky Sall ba mu ko ko jébbale nag Macky Sall daf ko laajoon na ko ndax benn copie kese la commandant Abdou Mbengue nag moom si boppam ci biir rapport bi commandant Abdou Mbengue Mbengue mi jiite woon section de recherche ci biir rapport bi nag moom daat nay nangu ne jëf ji mu jëf andi ay modification ci PV yi loolee Serigne Bassirou Gueye mi nekkoon nag procureur moo ko ko santa loolee moom commandant Abdou Mbengue mi jiite woon section de recherche maanaam biñ ko enquêté biñ ko laajee mu tontu moom nangu na ne jëf joojee Serigne Bassirou Gueye moo ko ko jëfloo yéen kaay gii de l'info nee na Ousmane Sonko démasque ses comploteurs Mamour Diallo nag Ousmane Sonko nee na proposé na ay millions xam ne mooy Ndèye Khady daal di may dugala maître Dior Diagne moom dem na section de recherche fekk fa Ndeye Khady doon ko jéem a menacé ba tey ci biir journal bii di l'info Ousmane Sonko nee na maître Pape Samba Sow mi nga xam ne nag moo woon gynécologue bi daal di wax gynécologue bi ko waaw dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne dañu koo violé jamono ji waaw ma ngi ci diggante du nag dee ki nga xam ne nag mooy gynécologue bi bàyyi li mu doon def lépp ndax narutoon toona dem de waaye li ko maître wax moo tax naan ko waaw xale bu jigéen bi loolee moo tax nag mu bàyyi li mu doon def lépp dem nag sa aji saar moom gynécologue bi bi mu gisee nag nga xam ne mooy aji sara dafa daal di tiit ne nag ana ki nga doon di xanaa kay du kii waaye nag moom gynécologue bi daat nay dëggal ci kanamu doyen de juge ne moo def li nga xam ne nag mooy rapport médical bi te gisu si lenn loo xam ne niroo na ak xale bu jigéen bu nu violé yéen a kaay gi di source ñu xëy fekk fa docteur André Moussa Diop nee na jamono ji Ousmane Sonko daal ma ngi niru niru lu président Ousmane Sonko ma ngi dox doxiinu président doxiinu koo xamante ni jamono ji nag jege na lool ngir jiite am réew waaye nag sorti bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko lu baax la ginnaaw bi ñu ko dégloo Sonko euh, presse bi wax Ousmane Sonko génn leera la nag lu baax a baax la bu ñu sukkandikoo ci docteur André Moussa Diop nee na nag Ousmane Sonko ci boppama maanaam lu nit ñi nag di gën a bañ Macky Sall nit ñi di gën a bëgg Ousmane Sonko yéen kay gi di exclusif Ousmane Sonko nag démba nee na Macky sal ma ngi wut ay xibaar si ñun de waaye tamit na ko leer ne ñun tim am nañu ay xibaar yu leer ci moom li muy ndekkee sax xam nañu ko yéen kay gi di Les Échos Ousmane Sonko nee na garde yi nga xam ne dañu koo téye loole nag provocation la teg loxo ñooñee laale wuñu ci mbir mi ndax ñooy ñi ko xam ne ñoo ko gën a jege ñi nga xam ne du duñu ko dànd benn yoon ñooñee la ñu teg loxo te ñooñee seen yoon nekku ci te nag lii la waaye Macky dafa bëgg a créer nag yeneen dossier waaye nag na ko tey jamono ji na tàkk lépp nag ministre de l'intérieur Antoine Diome moo nekk ci ginnaaw procureur bu Mbour waxul dëgg yéene kaay gi di 24 heures procureur bu Mbour le procureur de Mbour amanti procureur bu Mbour waxul dëgg du samay kaddu damay nettali kaddu Ousmane Sonko la na bu baax a baax anam bi nga xam ne moom la ñu tegee loxo garde rapproché yu Ousmane Sonko yee ndax nag nee na mënoon nañu leen a convoqué ñu dem wuy ji mbuur moo gën yéene kaay gi ba tey ñi nga xam ne nag ñooy waa yaanaa maara ñoom nag nee nañu lii terrorisme politique la bu Macky Sall yéene kaay gi de la Réveil Quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom nag sonn nañu lool ndax nag ay moyens yu bare bare bare bare la waa Benno Bokk Yaakaar génne ngir nag def seen communication waaye nag communication bu jamono ji moom ci la waa Benno Bokk Yaakaar gii di laas nee na liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital principal bu Dakar démb doon nañoo amal nag toogaanu ñaxtu ndax nee nañu hôpital bi ci boppam moo feebara bloc opératoire bi mën la dañoo am ay jafe-jafe ngir nag opéré ñi nga xam na ñooy malade yi amuñu ay ambulance seen ambulance yaa panne ba pare nag dañuy am retard salaire yéen kaay gii di libération nee na délégué yi nga xam ne ñooy liggéeyee seet jamono ji nag ñoo mer nañu ba maara day tale ndax nee nañu harcèlement licenciement abusif ay yoo xam ne teguñu ko fenn ay jafe ci seen liggéey loole la ñu ñaawloo directeur général ba